Euh, ñu ngi am mbégte bu baax a baax a baax gis la tey sa mariage rak sa mariage yu doom. dëgg la ban mbégte nga am tey ci bés bi. waaw mais damay kontaan. parce que yaakaar naa ne ñu ñëpp bés bi la ñuy ñaan quoi. xam nga rek ku ci mel ni nekk suñu actrice. xam nga ñu yor ko ba tey jii nii am borom kër. xam nga loolu rek lañ si ñaan di ñaan juste rek see bi yàlla barkeel ko. Uh-huh. seen émission bi nouvelle bi naka nga ko dundee mu nekk sa rakk aussi ñu xam seen relation yéen ñaar. waaw mais dama si kontaan trop mbégte bu xamante ne amul fu mu yem. Uh-huh. donc euh, am nañ ci yaakaar bu baax ci sëy parce que. Assane nekk na ku yaru quoi. Mhm. vraiment donc euh, dénk nañ ko Moustapha Nam. Mhm. mi ngi noonu incha allah Diané xam naa fii a jaaree commencé football quoi Aliou Cissé commencé ko classé. <laughs> mais entre frère et sœur tey gis nañ sëyu artiste yu bëri dañuy wax tey entre conseil. a ah. frère ak mag rek yan kàddu nga koy ci sëy. oui non ah. naa ne sama xel si moom quoi. Ah. parce que dafa yaru. waaw dafa yaru dafa yaru donc du coup dañ koy wax rek bu mu changé. xam mhm. yar na ko yaam yar na ko. super bien éduqué. lu ñu koy wax rek mooy mu topp ci tànk yi yaayam nekkoon. Mhm. incha allah dina baax. dina baax ah. mais mais sénégalais namm nañ ko de est-ce que kan lañ koy gisaat si série Burgi. waaw euh, non mais mi ngi fi musul génn. Hmm. waaw waaw di ñu gisaat très bientôt rek. Ah. incha allah merci am nañ mbégte bu baax a baax. jaajëf ah. jaajëf def lenn loo xamante ne jëkkëram digalu ko ko xam nga lépp lu ko sant mu def ko lu ko teree mu bàyyi ko incha allah papaam ñaanal ko i barke seen yaay. waaw na métti na parce que moom li mu gënoon bëgg si àdduna mooy fekkee mariage boobu yàlla def na fekkewu ko mooy li gën si moom bon ñu ngi koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana xam ñu ñaanal ko aussi. barkeem topp doomam daal si sa yaram. mais sa sa miinu ma ko bu baax nag jot nañu wax téléphone jot na fi ñëw mais xam naa dinañ gën a déggante incha allah. mais waa ah, loolu moom wax dëgg yàlla da ngeen di bàyyi ba ay satu ñëw dina leen si. may goroom waaw waaw may goro maa ko teewal mais am na yenn yoo xamante ne moom moo leen ko mën a wax parce que moom moo ko dund ak moom waaw bu ñëwee incha allah wax sa goro ma fàgg jox nañ ko xale boo xamante ne yar nañ ko fi ñu ko war a yaayam jur ko fi ñu ko war a juree xam nga di ko wax ne nañ teye xale bi rek parce que xale la di ko desee bëri na di leen ñaanal daal ñu épanouir si seen ménage ñoom gis naa tey taxawaay bi ah gis naa ne yaa séddale beñe yaa séddale jus ah. waneeti nga ni sa jigéen tay tay daal fu mu nekk rek da ngeen koy taxaw ban yëg-yëg ngeen am tey waaw kontaan rek duñu am leneen lu dul lu dul kontaan rek mhm. di sant yàlla. waaw di ñaan sëy bi yàlla na barkeel. amiin ñoom ñoom ñu ngi ciy séntu. Mhm. yàlla yàlla nañ ko yàlla jagleel si barke yonent bi sallallahu a alayhi wa sallam. Mhm. Euh, di ñaan ñu am si jabar bu barkeel daal. waaw gis nañ seen xarit la mi ngi pour Sénégal mais ba tey yéen a ngi sàmm kóllëre bi. waaw seen digganteeg euh, Virginie. waaw waaw suñu digganteeg Virginie euh, dafa yàgg même si du parce que du tey quoi. nit nit nit nit boo boo man man dama xam nit boo sekkal moom même kóllëre maam da nga koy sàmm sa xamoo xamoo ëllëg te tey ji ñun ñun ñun ñun lii lañu lii lañu lii lañu mën a suñu biir lii mu xew la man ma teewal ko won ko ni teew naa man tam bu ma xewle woon tey ji man leer na ma ni bu ko fekkoon nii la may wanee ni moom tam mu ngi fi donc dañuy dañuy kontaan rek te di leen wax nañ moytu waaw waaw loolu ah yéen ñi seen yéen am problème parce que defe naa ne léegi wuy ma <laughs> entre entre frère ak sœur euh, ku ne xam ne li nga xamante ne sëy noonu ngeen ci sëy man nag xam nga nag mënu ma ko conseillé loo xamante ne man xam naa ko ndax sëyaguma dama kay wax rek ne comme ah, li ma jot a dégg wala sa mag la nga koy wax man sama mag wala sa rak soo ko mayee la nga koy wax sama rak yaa ngi kër ga nag dama guñ waaw te buñ demee man naa la woo nga ñëw man ma wax la yow li ma ne bon euh, kontaan rek di di ko wax mu mu mu mu moytu mu mu sëy mu sëy mu mu sëy mhm. dégg naa say métti na waaw dégg naa say métti na mu bañ a déglu waxu sénégalais mu bañ a moytu mu moytu yéen seen wax yéen gi mu moytu leen man mënu ma moytu man mënu ma ko teewal si bësam ba pare mu moytu man tamit xaritam laa ñun ñëpp ñoo far xaritam nga dëgg la de loolu moom dëgg la ñëpp ñoo bokk ñoo bokk li tey daal bés yi bëgg nga ci kontaan billaahi waaw te di wax euh, Aïssatou waaw j'ai mangé cola qui t'a attaché lekk naa gura bi la tax euh. aali joor bi faral si yàlla sunna si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cant teew auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin rahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata sunna su Muhammad ay sëriñ ali joor ci farata siyaama sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ndigalu kilif ci di sëñ lum may na ay sëriñ ali joor kii di Moustapha naam ci farata si yàlla sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci diggalu kilifa ci kaw can bu mat di vingt six mille teew na mat alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ousseynou téye sa micro. seen nga xamante ne moom mooy sarax ay ban yëg que kontaan rek. waaw kontaan kese laa si amoon. waaw parce que ku nekk ñaan nga yàlla sarax moom ci kii nii soit alpha ak jigéen bi mu daal maanaam am jëkkër rek nit jigéen bu dee benn question fi mu doon laaj lan moo la teree am euh, jëkkër nekk jigéen donc comme nag moom am na jëkkër dañ naan alhamdulilah. ndax loolu daal la am na ma koy wax waaw di ko ñaanal moom tamit euh, si football bi dem moom moom it mu réussir ñaan nañu yàlla un jour mu sol mooy équipe islam bi si terrain bi voilà bu ma si waxee xam naa si dara damay fekk personnellement comme Sénégalais yëpp yëpp dañu wax Bamba Dieng Bamba Dieng bon ak suñu ak ay tuuma quoi Sénégalais dafa mën a tuuma doomu aadama fii lu nekk bu ko doon wax taw Myriam gaañoo ñu naan lan moo tax def ay vidéo lan moo tax def mais moom mais kuy dund bokkul ak ku dee kuy dund da ngay def yooyu yooyu yëpp kuy dund. bu fekkee da ngaa dee rek nga def kuy dee noonu la noonu la àdduna bi demee Sénégal dañ bàyyi wax dañ bàyyi yàq der wax ay Bamba Dieng fii à gauche Bamba Dieng à droite man moom mënu ma bon dafa bett quoi parce que bon demoon naa comme Sénégalais demoon naa di moom Bamba Dieng mais mosuñu wax téléphone ma ne. mais waxuma wàcc laaj bi fii ma ne yaa parce que. dama koy bàyyi mbir moom tamit fii fii waaw du man maa koy wax jëlal dugal nekk na dugal nekk na kii man moo xool ku nekk sa xol ko dugal ko sa xolam waaw parce que non defuma dara que man jaar naa fi man mii magam boo man j'ai deux femmes man jabar lu ma di ko def di xam ne que dina bi day rax wala rax noonu la demee